ci loolu laa doon ñëw sànq parce que Pape dafa wax lu am solo. Mhm. dafa wax lu am solo mooy relève boo xoolee partie traditionnel yi fi nekk yépp ci biir doo ko fa gis ñun Sénégal dañu am lu ñuy wax problème bu ñuy wax transmission mooy jiite parti yow nga nekk am responsabilité di doxal war ngaa mën a xalaat yow boo fi jógee kan moo lay ñëw mu ut. Mhm. waaw ñu def jàngat boobu nag gis nii nii Euh, néew na trop ci parti yi nga xamante ne nii mun nañu gis ne nii à travers leur leader seen doxalin mun nañu am yaakaar ci xale yi nga xamante ne nii mun nañ ñëw jël réew mi pour doxal ko te à chaque fois dañuy gis loo xamante ne ni phénomène de politisation la bu ñu jëlee PDS sax amoon na génération du concret même parti socialiste amoon nañu aussi benn kuréel bu ñu tuddee woon relève mais phénomène de politisation day dem ba nga xam ne idéologie yi nga xamante ne ni ñoom yore nañ ko pour ñu mën ko teg donc ñun ñu ne comme loolu problème la ñu dañuy dëggal suñu bopp créer suñu mouvement wu bopp idéologie yi nga xam ne yore nañ ko ak position yi nga xamante ne yore nañ ko ñun ñu mën a demal suñu bopp. lan seen idéologie ak seen position ci politique. ñun suñu position mooy ñu nekk ci askan bi mooy lan dañu am li nga xam ne nii moom lañu ñu moom mooy jeunesse bi moom mooy famille moom mooy diaspora yi parce que gis nañ ni loolu mooy doolewu mu toll nii Sénégal moom mooy doolewu askan bi yëpp ñu ne jeunesse bi boo xoolee institution yi bopp te jeunes yi ñoo fi ëpp bu fekkee famille famille ñu ngi ci dans le secteur informel lu ci gën a bëri tey boo xoolee économie du Sénégal y a plus de quatre-vingt-dix-neuf pour cent yoo xam ne dañu neen ñu ngi ci dans le secteur informel mu nekk ay femmes yu jàmbaare mais kenn jàppalewu leen kenn amuñu accompagnement bi ci war waxuma nag phénomène de politisation encore une fois bi nga xam ne ni chaque fois bu élection ñëwee ñu xëpp xaalis ne ñu ngi jàppale femmes ak yooyu ñu loolu intéressé wu ñu ce qu'on fait c'est la politique de développement mooy euh, ñi nga xamante ne ni ñi ngi ci terrain bi di liggéey ubbi seen entreprise ñun ñu fekk si leen di leen jàppale di leen accompagner ci formation ak ci financement